Thank you yaa ngi toog Kadja. maa damay génn nii. ah. waaw Mouhamed Silla mu baax mi macha allah. Mhm. moo ma yónnee sabab bu baax ma war koo dem jëli ji. sabab ah, waa gis nga xam nga takku sama yëf la. Ah, nee naa la dañuy boole kooba ginjar ak kooba boobar doom. waaye man tàngal mante laa ndax fu ne laay dem. waa dëgg daa toll noonu. nee naa loolu sama yëf la. maa ko moom nii Mouhamed Silla xale bi góor la géer la garmi la. garadal la lolou mom benen débat la moom ma yónnee sëba bu baax. ah bon mom la ma ko lim ni ma war ko dem jël ah. waaw. kon korite ren bi da sa ko tala ya ko. nee la sama korite la. maa ko téye amaamee ni nii nii nii waaw waaw amaamee. Ah. loolu fort dina mel jam ak jam ak yendu len ak jam maa la ko wax. gam na ni takku nga mom takku naa ba dëgër ba mel ni kuy dem guerre mondiale. Mm. waaw yàlla ci yàlla musal. ah tamit na ci yàlla musalee fekkee rek moo la ci boolewu waaye maa ngi mel ni ku fa jëm. Mm. waaw. te nag na ngeen fexe rek yow rek laa ko jox boo ko partagé fii ci biir kër gi balaa cat di ma toog ndax cat dafa mees yaa ngi may comprendre li ngay sama xarit nag a tax ma jox la ko amul benn problème ma dem te ñëwaat. cat sa la. non non dama yow dèjà commencé ngaa jot sa bopp te dama ko. déglu yow nga jot sa a bon. déglul wàññil sa dama la koy laa xam. man partagé du sama yëf nag. déglu dama lay jox rek ndax yaa ngi yore sa téléphone tam nga jox leen ko en direct li may wax nga enregistré ko nii maa ngi dem maa ngi ñëwaat à tout à l'heure li ngay def dégg nga. bonne journée. merci. waaye. waaye sànq tey tey gisuma ko fu mu dem. maman tey ma nga xëy rek sànq rek ba mu baax. mu naan naan damay génn daa am benn colis buñ ma moom laay dem jëli ji nii yokk loxoom nag ba mu sës augmenté dafa visé monté serré. tey de maman rek. maman de daa takk ba mel ne takku naanaa. waaw maman kan moo ko war a jox colis. ka jaa kan ma war a yónnee maman colis. loolu de laa bëgg a xam fu mu toll nii. Ah. loolu ñor na ma trop waaye ñàkku ne nag day bëggante ko maman moom daf naka jaar su ma dundee bu maman am jëkkër ba dem sëy maag sama jëkkër buñ deewee dañuy tàlli ndax maman dañoo sonal <laughs> maman de bàyyiwul ah, kenn war naa am jëkkër de dëgg yàlla moom lamb na de ah, xëy na waa ji moom nga xam góor dina def ah? xam naa góor ñi dañ ko gisul comportement ba la nag boo demee waa di ñemewuñ làmmiñ bi tey loolu yëpp waxuma ko man waxi maman sax man dama koo waxut mhm. sama ben xarit lañ ma wo leg ne ma jëkë ji da ko fase ndax suukaru koor hmm. suukaru koor do nga tax jëkë ji fase ko japp dëkk bi yëpp fu mu romb nga tek sa table lu baax rek mu lepp ko di lepp di lepp di joxe ay suukaru koor joxe ba yaakaar ne moo ca ne ba war a rek def terminaison mhm. jëkkër ji ne ko may naa la sa baat ko de hmm. divorcé ma ne ko moo yey loolu lañu war bu weeru koor ñëwee rek ñoom dañuy profité naan ay suukaru koor ak yooyu benn fan ñu xaawi ci sa sutura nga leb amoo defoo ko yàlla tegu ko kenn. man de waxuma ay sax man waaye xale jigéen xale jigéen de fajar la ñuy yeew seen bor rek kenn ko wante teg ko ci palaat yow sëba nga leb. Mhm. jasner nga leb. Mhm. yow dàll nga leb. Mhm. lépp nga jël ko teg ko sa bopp. ah yow koy xanaa korite xale yi ñoo ko moom. xale yi boo la sooy la jeex na yomb ak soo yeewoo def sa vaccin bu baax la xëy ko sa ginaar bu paasee paas na waaye déedéet duñ ko def de dañuy daal di lebal lebal lebal jël yëpp teg ko seen bopp bu julli bi paasee nag ñu kërti kërti fu nañu dugg fa man damaa yaakaar ni nit ñi duñu xalaat bu ñu doon am na yenn yoo xam ne doo ko teg sa bopp nit waroo teg sa bopp benn stress ah. Ah, seen toogaay yanji na moom waaw waxaloo leen ma fi dara rek ah seen jikko la nag man bu ma leen gisee nii puusal ngeen catu nag xam naa ne ngeen ci man rek ne ngeen ci man de ne ngeen ci man lan la merci beaucoup bu ma kenn catu wax waxoo leen ma fi leen ah newoo leen ci man ah seen jikkoo la de te ma ne fi ngeen di kii ay gunóor ngeen damaa demoon jëli sama colis bi macha allah Muhammad Silla mu baax bi xale boobu nga xam ne demul Europe rek toog di photo nekkee fa photo macha allah liggéey daan doole ko tax a jóg. Mhm. mu bëgg ma lool tamit ba ma xam ne daf maa bëgg. macha allah mu yónnee ma sëba boo xamante ne nii. allah akbar ah, toli baa ngi nii bii di jub si de moom boo amee cheveux da ngay fël ma saag bi man ma tiitaw. sëba la ma yónnee sëba pire nag. sëba gis nga ba mu ko doon selfie. di ko sinapsat ni la taxawee sëba ba weesu na sama tànk di dem. Hmm, de ndaw loo ngor. longueur bi laa ilaaha illallah xàmmee naa sëfa nag mm. bu leen teg dem teg synthétique yéen ñett laay waxaal dem teg synthétique yokk ci mees naan sëfa la te man piir bi laa am yokk nga sa garaat demoo yii yàgg na laa ilaaha illallah ku am koo mel ni mu xamee sa laa doo yokk sa garaat dama mm. <laughs> yokkee sama garaat ëpp na bu leen yokk seen sëfa de mm. longueur <laughs> ba de mënuma koo wax sax dafa seer dëgg neexul ah macha allah yow tamit man garmi laa am garmi laa am nii nii nii. ah sëba de la may yónnee kajaa amul sëba kajaa samay sëba lay jël. kajaa samay sëba lay jël ma xamee si laa mu baax ni rek a may yónnee sëba. macha allah. xamee si laa mu baax ni cey cey. dëgg neexul. sa yi. mu ne chéri baal ma àq ah. beneen yoon naa la yónnee bu ëpp lii. Ah. mais damay bàyyi ba tabaski su may ñëw àndaale ko. dëgg neex leen def leen naa ah, waa ñun tamit nag waan. ah leen rek am ku la ah. leen rek bu leen ma catu. ah naa la ma kii paaka ñaari boor la. mën ce bee boor mën ca bii xanaa du kii la góor ñëpp jigéen yi di wër. waa kii garmi la nee naa leen garmi la lu ma wax ci moom lu nekk am na lu des. maa ko la cas nii yëkkati ko ba ci kaw nengeñ ko roofoo ko dugg ko ba ci biir nag du ma ko dóor mort benn yoon xanaa ànd ak moom na jaw dem. waaw tabaski korite waaw dëgg daa neex. waaw korite bi ñëw la reer. waaw waaw bu tabaski bi añ waaw bu tabaski bi ñëwee lu ba lay boole. reer beeg ak nekk bi. merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup lay moo baax i maanaa personnalité ah, ragal ma ne yow yow day ma sàndeel rek yow day ah. ma sàndeel dama koy taf gis nga chéri la ci def de souvenir la nii laa koy tegee nii laa ko naan ñàpp ma ne ko chéri la souvenir la de lay mooy garmi mooy garalam moom la aji ma jaal mbaay di wéy de ah. maa la ko wax. kii kenn du moom. nee naa la sàkkar yàlla bi. Mhm. kenn du Mouhamed Sylla daa doon turoon dóoram de. ci gam ja ca fulla ja yow looy yëndu. Ah. sob ah. waaye muy yow. xam naa nabi la. nabi la ah, nabi la ñoom seen nabi. <laughs> bi li carton de bi. ah ma saag. donc sëñ bi li carton la dimbali ma rek ah ma saag. looy doy saag bi doom doy. xam nga ne kat nekkul ci saag bi nag yow tamit ndax lii dañ koo kole woon. waay waay waay waay waaw xoolal fi nag xam naa mu ngi fi nag. sëñ bi da ngaa yàkkamti nag dafay faral di kii. kon xam naa bu gàtt la la mujjee yónnee. petit ten bi frise bi day tuuti. wala petit ten. bi day tuuti. わんない tất cả wow, Wow, dia gali. Wow, kay. Wow, wow, wow, la bandi. Yo, bo demé bop koñ ba ñu lah, la. Barki yonenti. Tu si fier de toi. Ya ngi yaa tekki sa bos jox ko a lii ak sotti. jeex na jeex na accessoire waa sotti bu la. waaye Mouhamed Sylla tamit. nga jaay aw ko sa bos. damaa am cataracte wala feebaru mi yow. est-ce que li fi mu yob la. pour pour naaj beeg yooyu. waaw lii ay ay lunettes de soleil la. <laughs> ma ak été bii di ñëw dina baax bii mu ma mu ma da am faru rab. mu la. waaye man manqué wu ma deret manqué wu nga. ci naaj bi nga dox nii. waaw dafa animé ko bi di nga ko jëlee. manqué ma deret daa sol ndox <laughs> naa benn tubaab moo la for ko <laughs> yi ba ay lunettes de soleil ah. la tey. ñette bi nii ak tàngoor. Ah. waaye leer naa leer na laa lay xamal ne boo demee bopp koñ bi ñu sarax la. engrais kii ko li ay ray bande la dafa rafet. Mm-hmm. Mouhamed Silla de bu ko jaay nag. ah ndeke baaxul de. Mm. trompé na ma lool lool lool lool lool. waaw du sax nga ma wadd de kol bi baaxul lool yaa ngi ñàkk sax damaa yaakaar l'émotion bi la. <laughs> <laughs> l'émotion kay. c'est l'émotion. mbaa du luusa nga